إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom boroom boobu nga xam ni moo ñu bind bim ñuy bind mu bind ci ñun ak dee bind ci ñun ak dund njëree mu nattuñu ana kan ci ñun mooy rafetal jëf jëf bu rafet mooy ba dëppoog la yàlla digle ñu dëppale koog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla di leen fàttali ne day suñu borom yàlla mi ñu bind moom moo bind doomu aadama yi daa di leen di gënale ca la nga xam ni moom la lu bari ci ay mbindaa fanam suñu borom mu ne ñun ñoo bind doomu aadama ñoo ko yenu mu mën a dem di dox ci géej ga comme jën ya di dox ci jiir ya comme bàyyuma ya gëne la ko ci lu bari ca la nga xam ne mooy suñu mbindaa fan loolu it moo tax ba suñu borom yàlla dafa teral doomu aadama bi muy dund waaye teral doomu aadama bi mu faatoo loolu mooy tax ba sunu xutba tey mi ngi jëm lan mooy taxawaayu jullit heure bu ñu amee néew bu faatu faatu boobu nga xam ne day bette ca lu bari ci doomu aadama yi tey xamuñu ana nu ñuy def ak ña faatu loolee mbokk ngallawaayu jullit xamal ni suñu diine jii day bàyyiwul dara looloo tax doomu aadama bi nekkub jullit day heure boo xamee ni nii moom daa faatu suñu boroom digle na ci moom ay atte atte yee mooy lan mooy moom day kenn du ko def nañuy def bàyyu ma yëpp ca mooy soo amoon am xar mu dee da nga koy sànni wala nga gas rek suul mu jeex waaye kenn du ko defit na nga xamee ni noonu la ñuy def yéeséer ya bal suñu boroom dafa digle ñu daal di koy jël def loo defal ko ay mbir yoo xam ne nii moom mooy ka nga xam ne nii moo ko yeyoo daal di koy dugal ci benn xabru boo xam ne moo ko yeyoo la nga xamee ni nii mooy la jiitu ci mbir yooyee mooy doomu aadama bu faatoo fokk war nañ koo jël sangu ko ba mu set wecc mi ngi noonu rasul sallallahu alayhi wasallam daan wax sang leen ko ñetti yoon sang leen ko juróomi yoon fii ak yéen a ngi gis ay tâche ay taq-taq sang leen ko lum néew néew daañ ko sang ñetti yoon mbokk loolu mi ngi noonu gannaaw ba ñu suturaal yaramam yépp même ba doon dañuy uti ay ñax sax bañ uti ay ñax suturaal yaramam yépp gannaaw ba dañu koy jël utal ko xabru boo xam ne moom dong moo ko yeyoo ay jata-jata mooy tax ñuy boole ñëpp ci xabru waaye ku nekk dañ ko war a wutal la nga xam ni moom mooy xabrul boppam mbokk jurit loolee nag nga xam ne ay dénkaane la suñu borom subhanahu wa taala gis nañu ne dafa sant doomu aadama yi ñu daal di koy gaawee yonent bi alayhi salaam daana wax ne lan la waaye su ngeen amee ko faatu gaawee leen ay mbiram ñaar rek moo mën a nekk mooy nit ku baax la yéen lu ngeen gaaw gaaw moom xeeb na loolu ndax yàkkamte dajeeg xéewal ya nga xam ne moo koy xaar ca barzaq yàlla na yàlla boole ñu ca mu ne it bu dee nit ku ban la gaaw leen génne ko seen biir loolu it moo tax ba mbokk la nga xam ne moo nekkoon sunna ci suul néew ba yonent bi alayhi salaam di dund ba ay sahaabam di dund mooy nit ki bu faatoo dañuy xool armée lu jurit ya gën a jege ñu suul ko foofee la nga xamee ni nii mooy tuxal ay néew loolee mbokk julit dañuy gis ne la koy waral day doon lu jafe bokk na lu ca borom xam-xam yi di wax mooy kat dëkk bii day suul ko fi wóorul ndax balaa yàgg seen xabru yii mënees na koo jalgati wala lenn ca ñoom ñu ca dolli moom kat ña nga xame ne ñuy ak njabootam ñi ngi nekk ci place sangam lañ dajol lañ dajaloo nañ leen ko yóbbul ngiree ñoom ñu man koo taxawu ci ci seen mbooloo waaye taxawu ko yit di ko mën a ziar fu ñu mën a toll waaye bu dul lii mbokk julit ab néew bu faatoo dañ koo war a denc ca armeel ya gën a jege ca mbokk xam leen ni amul benn ngëneel bu yonent bi alayhi salaam masa wax wala kenn ci sahaaba masa wax ni nit ki day bu dee ñu suul ko place sàngam suul googee da koy jëriñ du makka du madina du aqsa du fenn foo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na buñ fa suulee nit ki da koy jëriñ bal lay jëriñ doomu aadama bi yàlla leeral na ko yonent bi alayhi salaam leeral na ko mooy doomu aadama bi la koy jëriñ mooy lam liggéey yi la cay topp mooy la ko nit ñi di ñaanal su ko defee nit ki bu faatoo dañ koo war a jël yóbbu ko buñ koy suul ñu suul ko daa di yeme la suul ga yëkkati xabru ba lu tolloog yaatuwaayu fi baaraam yi nekk ci loxo duñ ca dolli beneen suuf bu dul suuf ba génn ci moom yeme la ko looli bañ caa jéggi dayoo jéggi dayoo ba mooy lan mooy naka yahud yi doon defee ak nasaraan yi daal di yëkkati tabax ay tabax ci xabru yooyee tabax ci ay jàkka loolee tax ba nekk sabab lu bari ci doomu aadama yi tey di jublu ca bàmmeel yooyee di fa ñaan ngalawaay nañ xam ni ab xabaru kenn di fa dem di fa julli kenn du fa dem di fa ñaan lu dul xanaa da ngay jullee néew ba wala di ñaanal néew ba xabru boobu ak xabru bu mu mën a doon même bu doon xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yéen mbokk julit xam leen ni palaasu ñaanukaay mooy fii ngeen toog fii mooy néegu yàlla borom bi mu ne jàkka yi maa ko moom bu leen woo ànd ak yàlla kenn amaa ne da ngay dem jublu ci benn xabru ak xabru ba ku mu mën a doon di ko ñaan loolee mbokk da ngay gis ne nekk na ci musiba yi gën a grave shirkul akbar bu rëy la su dee ne da ngay dem ngir ñaan fa sa soxla waaye yàlla kese ngay ñaan yaa ngi nekk ci bidaa bu rëy mu la mën a yóbbu ci shirk ndax foofu du ñaanukaay mbokk la nga xam ne moo ñuy natt bi ñu dal commencé woon ne di raam ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yonent bi bis woon Ali ibn Abi Talib ne ko Ali kaay dem wëral ma armelia wëral ma madina bépp xabru boo gis ñu yëkkati ko ca jamono yooyu nit ñi dañ daan fonk seeni néew yëkkati seen xabru ba mu gën a kawe yeneen bàmmeel yi rek waaye xamuñu woon tabax fa ay jàkka ki ay musale loolee mu ne xabru boo gis ñu yëkkati ko maase la ko gannaaw ba lépp loo gis muy ay suura di ay xërëm tojal ma ko loolee mu jox ci ndigal ali ibn abi talib looloo tax ba mbokk islam nan la gisee islam day ni mu gisee mooy heure boo xamee ni nii doomu aadama bi faatu na ñu gas ko suul ko buñ ko gasee ñu suul ko su ko defee yonent bi alayhi salaam daf ñu daan tere ñu bind fa dara daf ñu daan tere ñu peinture ko daf ñu daan tere ñu indi ca benn ràññetle mi ngi noonu xatta la nga xamee ni tey boo demoon ci armeel yi xabru bu nañu bind fa kii de mooy Mor Ndiaye mi ngi judd bi Bistel mi ngi dee Bistel nangam nangam am ñu si daan teg sax naan ancien procureur la woon ah mbokk loolu catholique yi ñooñu ko indil dellu suñu xabru maam yi nekk ci réew yépp boo fa dellu woon cinquante ans ci gannaaw loolu doo ko gis loolu yonent bi alayhi salaam da koo tere mbokk julit noonu it la islam tere bépp toroxal bu ñuy toroxal xabru xabru kenn du ca taxaw kenn du ko jóg kenn du ca joggi kenn du ca toog loolu mbokk lañu lislaam digal mbokk néew bi bu faatoo nañ xam ni day jëmmam jëlan teqilikool waaye nag gallawaay ab julit na xam ni du fàtte mukk la nga xam ne muy ab néewam julit ñi seen warugar la ñuy dem ca la nga xamee ne mooy seeni armeel di leen ziyaar di leen ñaanal gannaaw ba ñu daal di dem delluwaat loole mooy la nga xam ne moom la lislaam santaane ca julit war koo def borom bi subhanahu wa taala la nga xamee ne moom la yoonal sa mbokk dee na sa wëllëre dee na ngal la waay foo toll dee ko ñaanal njéggal ak yërmaande boo mënee génne sarax ngal la waay génneel ko ab sarax sa way jur la soo ko mënoon ajal umraal ko loolee defal ko ko lépp loo xam ne nii ak jokko la ci rafetal lambay yi gannaaw ci ak njaboot wala ak mbokk jokk ko lii day mooy la nga xam ne nii moom la ñuy yonent bi alayhi salaam jàngal ci diine ju rafet ji te muy jullit mu am xelam bu dal ci ne man kat duma dee ñu fàtte ma comme na nga xam ne ni ci àdduna yi noonu la ñu mel fu ñu toll samay mbokk samay jegeñaale daañ ma yónnee ay ñaan ak i sarax ca loolu bu ko yàlla nangoo dafay doon loo xam ne nii da koy jëriñ foofu la lislaam yem ak ñun ca mooy ki nga xamee ni nii dafa faatu dañuy seet lu ñu koy defal waaye du ñu seet lu ñuy sàkku ci moom ak kum mën a doon ci jaami yàlla yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day avant muy faatu ne woon na yàll na yàlla rëbb yahudi ak nasaraan yi ñoom day dañoo jël seen yonent ya faatu woon daal di fay tabax ay jàkka heure bu ñu amee soxla bëgg a ñaan daa di dem dellu ca ca seen ca seen xabru yooyu daana waxit ni xam leen nañu leen fi jiitu woon day dañoo jëloon ca jàkka ya dem suul fa seeni bàmmeel e waay yéen maa ngi leen di dénk ngalla waay jàkka ya bu leen ci dem ay bàmmeel loolu day nekk na loo xame ne nii dama leen koo tere ay yéen mbokk jullit xam leen ne lislaam day dafa yemele ay nitam looloo tax xool leen fi ngeen toog ci jàkka ji tey ndax dañ ne patron yi ci kanam baadol yi ci gannaaw wala ñu ne séeréer yi kaay leen yéen njaago yi fële déedéet ñun ñépp a bokk toog yemoo nii it la yàlla bëggoon xabru yemel ko julit ñépp bokk nu ñu leen suulee la nga xamee ne moom la ci lislaam maye mooy nga wut benn mandarga benn xeer wala benn poto booy def sa xabru ndey wala xarit xàmmee ko pour ëllëg heure boo ñëwee nga man koo jagleel la nga xamee ne nii mooy ak ñaan waaye dañoo war doomu aadama ñu suul ci bàmmeel yi borom xam-xam yi ñi xamul richard ya ña pauvre doxandéem ya dee ci dëkk ba ak ñu fa juddoo ñoo ñépp ay jurit lañu ñu yemale leen nañ leen di yemalee ci sàppa yi jàkka ya heure boo xamee ne ab jurit ñëw na ci xabru mu boole leen ñaanal ñoom ñépp assalaamu alaykum ya ahla diyar min almuminin walmuslimin wa inna insha allahu bikum lahiqun nasalu llah lana wa lakum alafiya mooy nga nuyu leen xamal leen na ñun kat léegi ñu fekk si leen yàlla nañu yàlla defal afiya defal leen ko loolee da ngay gis doy na ci ziyaara bàmmeel donte ne yoonal nañu ña nga ca xam kay day sa mbokk la kay sa xarit la kay sa dëkkandoo la woon islaam yoonal na nga ñëw ba ci moom ne ko ay yow ki nga xam ne yaay Samba Thiam ay yow Fat Ndiaye asalaamu aleyk daal di koy ñaanal mi ngi noonu gis nañ commune Abdallah ibn Omar daana dugg ca xabru yonente ba sallallahu alayhi wa sallam fa la ñu suul Abu Bakar fa la ñu suul papaam su ma sàn ñëw mu ne asalaamu alayka ya rasulallah asalaamu alayka ya Abu Bakar assalaamu alayka ya abata ca mooy ñaanal nuyu yonent bi nuyu abubakar nuyu ka nga xamee ni ni mooy baayam yéen bokku julit xam leen ne bokk na fitna yoo xam ne nii tey jii nit ñi ñu ngi koy def doomu aadama bi xamul moom dana jàpp ne man de perte na man de xanaa sama bàyyi moom ko doy di la ndax gis nañ ay nit ñoo xam ne ñi ngi leen di tabaxal ay mausolée wallahi da ngay gis ñoo xam ne lañ def seen tabax yi seen bàmmeele jege na milliard wala mu ëpp milliard am nañu woote fii ci Dakar la nga xam ne mooy mausolée ba ñuy tabaxal seen bàyyi ñi ngi koy estimé ci huit cent millions loolee mbokk jurit boo ko gisee lamp yañ cay taaral décoration yañ cay def yow sa baay ñu sànni ko fee ca mboy ga xanaa da nga naan kon toroxal naa ko wallahi déedéet maa ngi lay bégal yow julit yow yaa teral sa baay yi ndax yow yaa defal sa baay la yàlla digle yaa defal sa baay la yonent yàlla digle lan la yàlla ak yonent yàlla digle mooy ab mooy xabru bi bu ko kenn tabax bu ko kenn peinture bu ko kenn mandarga loolee mbokk da ngay gis ne fitna bu rëy boobee mu ñu jural biñ demee ba li ñuy tuddee xabru nit ñu baax ñi jël nañ ko taaral nañ ko xabru yooyee tey lu ci bari la muy génne ci million kenn xamul nu mu toll ndax ñu bari ci doomu aadama yi dañuy jóge ko sore sore sori jàpp ne soxla buñ mën a am buñ yëgsee ci xabru bi rek loolee seen soxla yépp doon na loo xam ne nii ah faju na ay yow mbokk julit xamal ne yonent bi alayhi salaam day daana wax ne sahaaba yi dégg allahuma la tajal qabri watanan yucbad istada gadabu llah ala qawmin ittaxadu qubura anbiyaihim masajid ay yàlla sama xabru bis bu ma deeyee yàlla boo ko def occasion fu ñuy lay bokkaalee aka tarmerum yàlla ci nit ñoo xam ne dañoo jël xabru yonent ya def ko place bu ñuy jullee ak place bu ñuy ñaane ma yéen mbokk julit nagam xabru yonent moo mel noonu ana xabru keneen ku dul yonent yonent bi alayhi salaam teg ca ne inna min shiraari nnaas man tudrikuhum saa wa hum ahyaa walladina yabnuuna almasajida ala alqubur bokk nañuy yées ci doomu aadama yi ñi nga xam ne ñoom la bisu penc di fekk fekk ñu ngi dund ak ña nga xam ne dañuy jël xabru yee di kat di ca tabax ay jàkka wala di jël ay jàkka di ca dugal ay xabru ay yéen mbokk julit wareef la ci julit ñi ñu fàtte lu ko waat lan mooy cosaanu armeel lan mooy cosaanu armeel ay yéen mbokk julit fàttaliku leen ne day suñu borom yàlla subhanahu wa taala ana ñaata ay yonent ñoo nekk ci suufam si ñaata bokk na lu borom xam-xam yi di wax naan mursaliin yi moo ñu yàlla yónni ëpp nañ ñetti téeméer amma anbiya yi am nañu ko yóbbu ba téeméeri junne ak ñaar fukk ak nangam ci ay yonent ana ak seeni bàmmeel tey léeg-léeg nga dugg internet ñu ne la bàmmeelu Yuusuf bàmmeelu Suleymaan bàmmeelu nangam mbokk déedéet amul benn bàmmeelu yonent ci kaw suuf bu nit ñi xam lu dul bàmmeelu sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngaloo yéen ndaw ñu xam leen loolu lépp luñ leen di woon c'est faux loolu amul benn bàmmeel dong la borom xam-xam yi seede ne bàmmeelu yonent la muy suñu bàmmeel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na lu ma gën a dugal ci xutba bi benn fitna boo xam ne mi nga tasaaroo biir Sénégal doonte ne ña ngi ko sosoon depuis 2004 benn waay boo xamee ne nii ba mu gisee ñeneen ñi seeni maam ñu leen di ziar seeni xabru di indi en nit ñi di indi ay dépense xëy na moom amul maam bu ñu ziar mu ne yàlla won na ko ci mbuur xabru benn yonent sant ay taalibeem ñu dem toj àll ba ñu jël benn place daal di koy defar xabru bu gudd bu jekk mu ne kii bokk na ci juróom-ñaari yonent yi gën a màgg yàlla mësu yónni ñu ngi ko suul fii ci mbuur gaa yi nekk di wax naan gaaw leen yéen waa Sénégal ñëw balaa waa Arabie Saoudite balaa waa Chine balaa waa Japon di leen fi xatal ci xabru bi mbokk loolu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun musiba bu rëy la naam daa gis gaa yi commerce rek mu commerce kay nga xam ne jël na xabru baayam parce que nee na baayam yoroon na fi daara waroon na fi taalibe dem jël ay millions investir ca ne nit ñi kaay leen moom it xamul lu muy def mu créé moom it ab xabru yeneen tam waaye nga la waay yow mi am xel heure boo jógee sa dal jëm ci xabru la lay yóbbu na doon lan mooy dem ñaanal borom xabru ba bul jóg mukk naan da ngay ñaan borom xabru bi bul jóg mukk naan da ngay ñaani yàlla sa soxla ca borom xabru ba abadan donte ne nii am na benn mbig bu rëy boo xam ne niit ngalawaay waa Dakar war nañ koo xam waa Sénégal war nañ koo xam mooy dëkk bii ñuy wax Ngor bokk na loo xamee ne nii depuis seeni maam dañ koo décider seeni armeel kenn du fa tabax ñépp a bokk yem dem leen armeelu Ngor suuf kese ngay gis kenn du tabax mu am lu gën a yéeme loolu lu gën a yéeme loolu mooy fi ñuy tudda yoof mbelalaan dafa am armée lu yoof ak yoof mbelalaan fa waayu village ba di suul ñoom day dañ doon tabax comme ñëpp ma daan dem ci armée li gis ko tabax yi fees dell bañ demee ba dajeeg benn borom xam-xam mu dajeeg mag yi jumaa ja xamal leen ne lii day yonent bi da koo tere dañoo xëy bis woote dugg ca armeel ya toj xabru yépp génn ko demal yof mbelalaan suuf kese ngay gis yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen yal na yàlla def leen royukaay ci mboole mi Sénégal yi mbokk loolu la suñu borom yàlla digle ci wàllu googe su ko defee kon ñu xam ne mbokk julit teral ab néew day mooy nañ ko suul na islam sante bañ koo doon di ko fàtte fu ñu mën a toll lii rek mooy la nga xam ne nii moom la lislaam namm ci ñun mu des musiba it bu rëy mooy tey jii nit dee na lan muy mbir bi saraxu ñetti fan bi jàpp nañ ko jour tel sëriñ bi nee na bisu juróom-ñetteelu fan bi mooy sarax bi mbokk loolu ndax lislaam a ko digle déedéet ak cedd moo ko digle yeneen ci yàlla ci sahabaam xamuñu woon saraxu ñetti fan xamuñu woon juróom-ñett xamuñu woon ñeen fi ko gëddi bal dajaloo ca aji ka dee doomu aadama yi daje naan dañuy toggi ñam ngal la way xoolal sahaaba bu mag bii di jarir ibnu abdullah ah albashari mi nga xam ne yàlla mayot ma mayoon na ko mu gudd fan ba gis lenn ci loolu mu ne ñun day lii dañ doon jàpp ne ci niyaaxa la bokk niyaaxa mooy sa mbokk de nga yëkkati sa kàddu di feeñal saw naqar yonente bi alayhi salaam rëbb ñuy def loolu ne ci kabaar yi la gën a bokk mu ne nag woo nit ñi dajaloo sa kër ñuy togg ay ay ay ñam ci loolu la bokk nga la waay yooyu mi fonk sa waajur du ne dafa dee nga reyal ko nag wala reyal ko xar mi ngi noonu wallahi xam naa benn famille fii ci wokkaam ba seen waajur dee ñu dem jënd benn nag paa yi dañ ne déedéet kilifa gu toll nii dee ñu ko reel benn nag fokk ñu indi ñaari nag loolee tamit loo gis tey dëj yi buñ demee rey nag bopp bi dañ koy teg ci buntu kër ga ku ñëw xam ne kii kat reyal nañ ko nag mbokk nag boobu yàlla dana leen ko laaj yowmal xiyaama loolee ak ceddo la sunu maam yi xamuñu ko woon sunu sëriñ si mag si jëkk a woote ci lislaam daawuñu ko defal seen bàyyi defaluñu ko seen maam loolee yàggul ci suñu réew tasaaru na ci àdduna bi waaye musiba la ngan la waay mbokk la lislaam santaane woon mooy waa ji nga xam ne dafa faatu ñam dëkkandoon ñam dëkkandoon day am nañ tiis boo xam ne mënuñoo togg kon dëkkandoo yi togg leen jox leen léegi nag boo amee ko faatu ñaari problème ngay boole problème sama bàyyi dee na waaye fan laay jëlee lu ma tere la doomu aadama yi am na ñoo xam ne ay bor da leen ci topp ba ilaa yawmi diin looloo tax ba ngal la waaye bañ koo bañ koo ma jox la ci la nga xam ne mooy misaal mooy Serigne Lamine Diop yal na ko yàlla yërëm nekkoon ne ministre des finances yor xaalisu réew mi yépp bàyyam faatu mu yóbbu ko armée lu yoof bi mu ñëwee mu ne ay yéen mbokk jullit yi sant naa leen gërëm naa leen yéen ñépp ni bi leen lépp jeex na maa ngi leen di fàttali Maodo si la grand sëriñ de Dakar ba muy faatu def ne ah njabootam bu ko kenn nekk di yëgle ko tasaare jël leen ba ngeen suul ma doog ko wax nit ñi bu ngeen ñëwee bu fa kenn toog na ñépp nit bi lépp jeex na mbokk lii mooy ay royukaay yoo xam ne yal na yàlla delloo ñu ca mbokk yal na yàlla yërëmal ñu suñu way dawlu yal na yàlla may kattan bañ taxawe leen na yàlla yonent bi bëgg ñu taxawe leen yal na yàlla jéggal leen ca yàlla yërëm leen yàlla bu ñu yàlla fitnaal la nga xam ne mooy seen gannaaw allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi l axirati hasana wa qina azab annar سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين